beaucoup mes amours ci lu ngeen nekk Zoss Mbaye yéen ñëpp a ngi ci en tant que jigéen en tant que jigéen buy liggéey comme man femme battante man suma jooy mais tey dama am lu ma naqari en tant que femme battante buy liggéey comme man defuma ci réew mi waxuma ci réew mi. ñi ma wàccandoolu aéroport ñu jógee Guangzhou ñëpp dañ leen di bàyyi ñu jàll mais man su ma desee man rek ci aéroport bi dañ may téye di ma di ma di ma di ma di mel ni man ñëpp la ñuy bàyyi ñu jàll man dañuy jël sama bagage di ko daj par benn benn di ko calculer di ma di ma def yoo xam ne day mel ni man ma ci dëkk bi te man ma dëkk ci dëkk bi di liggéey musuma am lu ma naqari comme tey tey laa gën a musa am lu ma naqaree nii su ma ñëwee ba ci aéroport bi ba war a génn damay obligé di làqatu lu ne ma koy def te dañ may fayee pour jógee siin ak foo mënti jógee dañ lay dañ lay bind sa facture jox la nga def mais man bu dee man dañ may toroxal ci aéroport bi loolu doyatul de dañuy jël sama bagage di ko daj di compter par benn fooy ne par benn fooy lay fay chaque jour dañ ma koy def dama naan patt bu ma ko mës a wax mais dafa metti man jigéen laa di liggéey defu ma dara ci réew mi di liggéey fii ci réew mi defu fi dara mais lu ngeen lu tax ngeen may def lii chaque jour da ngeen ma def di toroxal di humilier ma Chine wala mu jiitu ma fenn après bu ma demee fekk ko fa su ma yoree su ma yoree su ma leen ne lii laa yor sax dañ may simmi di ma palpe di ma def yoo xam ne en tant man nit ku siiw man waruma siiw ku siiw waru jàll ci Aïda Pop di ma toroxal di ma ñooñatal chaque jour bu yàlla sàkk mais damaa sonn ba kañ ci nit kuy liggéey yéen maa sonal bëggatuma sax liggéey Sénégal billaahi wallaahi waxtaan chaque jour ay métti yi dal